ñu ngi fii ci Montréal ci Canada euh, nekk ci suñu tournée bi nga xam ne que moom lañuy def fii euh, yeewu nag euh, am tiis bu dal si suñu kaw muy suñu soppee di suñu collaborateur seen xarit Abdoulaye njaay yàlla jël ko yàlla nag kenn mënu xëccoog moom ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana jël loxoom teg ko ci njabootam gi Abdoulaye de li ma ci mën a wax mooy xale bu baax la woon xale bu amoon talent xale bu daan partage la boo leen ko seetloo foo leen ko gis mi ànd ak ay mbokki comédien di bégal nit ñi taxawoon taxawaay bu rafet amoon jàmm ak ñépp vraiment tiis na waaye yàlla mooy dogal te dañ koy nangu kon nag ñu ngi koy jaale Sénégal yépp di ko jaale njabootam woy waajuram soxnaam yàlla teg loxoom ci njabootam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ci témoignage yi aussi yi nga xam ne que Sénégalais yépp defal nañ ko ko te il le mérite ndax loolu la fi def jërëjëf.